maaleykum man maay docteur Amadou Fall nekk médecin chef bu sante de santé bu Daaru Tanzil district sanitaire de Touba di représenté fii le médecin chef de région docteur Mamadou Dieng donc euh, ñu ngi leen di rafetlu quand même ñu ngeen parce que lii day tax ñu mën a vulgariser li ñuy def li ma bëgg nag yéen presse bi ngeen xam ko gouverneur ñëw na ci disposition yi ñu jël te tamit euh, ñun tamit boobu ba léegi tooguñu parce que ministère matuwaay yëpp jël nañ ko parce que depuis lors depuis une semaine waa COUS ñi ngi fi mooy gouverneur wax na ko sant des opérations euh, d'urgence sanitaire waa Institut Pasteur de Dakar ñi ngi fi même camion mobile bi mi ngi fi laboratoire mobile mi ngi fi ak waa maladie infectieuse tamit seen docteurs yi ñi ngi fi OMS mi ngi fi donc bés bu yàlla sàkk huit trente dañuy dajee jéemul def débriefing wax situation yi ñu am ay commission nag commission bu nekk dangay wax li nga def parce que am na ay commission suivi des cas am na commission visite administrative am na commission service d'hygiène am na commission communication yooyu ku ci nekk rek am nga liggéey booy def tey saa su ne bu ñu gisee huit heures trente après dañuy dem ci terrain bi bu quatre heures tam dañuy dellu soit ñu lu ñu xayma wax nañ leen ko prévoir nañ fii hôpital militaire fii nii ci résidence bi loolu ndigalu xalif bi moo ñu jox fii moom tam ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ñaanal parce que euh, lii mu def nii moom ci liggéey Sëñ Tuubaa la bokk ci gannaaw tam héliport bi dem foofu la ñuy prévoir le site de prise en charge parce que maladie am na fu ñu war a nekk foo xam ne du bokk ak hôpital yeneen yi te encore une fois ñu xam ne képp ku fa ñëw doo fay dara le traitement et la prise en charge elle est totale elle donc loolu laa bëggoon ngeen xam ko xam ne ñu ngi ànd ak suñu njiit fii gouverneur ak préfet Mbacké ak sous ñu ànd ak ñoom ak monsieur le maire pour ñëw saytu de visu xool ba xam naka la ñuy def ba mën fi installer ñaari sites yooyu ñu wax. alors ci xayma ñi fi nar a ñëw rek. Euh, les malades sont stables euh, comme ni mu leen ko waxee monsieur le maire ñëw na ci cas yi njëkk am mooy comme ni mu ko waxee au début la les directives étaient que malades yëpp ñu dem au niveau de l'hôpital Fann mais bi ñu demee gis na cas bi indi na yeneen cas ce n'était plus la peine ñu leen di kii donc on a dañu mujj jël centre de santé Daaru Manaan bi nga xam ne moom moo moo moo dépisté woon cas bi foofu lañ def léegi centre de prise en charge donc cas yi fa nekk son stables. stable sax mooy lan am na ñu nga xam ne jar na garab am ñu nga xam ne c'est des malades asymptomatiques cest saa dire dañu am virus bi mais amuñu feebaruñu seen yaram tàngul seen bopp mettul mais mënuñ leen bàyyi ñu dem ci ci jaww ji donc dañ leen confiner foofu di leen surveiller di waxtaan a ñoom on yu une équipe de psycho euh, anthropologue looloo tax ñoom ñu ñëw fi. parce que bu ñu tegee foofu rek te waxuñu leen dara dañu naan ah ñun dañuy fee teg te waxuñu dara donc ñoom feebaruñu mais ils ont le virus mais dañ leen di surveiller donc c' est loolu il faut ngeen xam ko donc cas yi ñu ngi Touba il faut que yéen bi ngeen wax loolu parce que sànq ba léegi sànq ba léegi ñi ngi may woo di ma laaj ñoo am na ñuy wax man leen yéen presse bi xam ngeen ci donc vous pouvez donner la réponse moo gën ngeen ñu woo mun ngeen ñu bañ a jot ngeen jàpp ne duñ leen jël donc vous avez vous avez été très bien informé parce que point de presse bi ñu defoon vous étiez là-bas donc les cas sont à Touba et ils sont très bien gérés ñu ngi au centre de santé de Darou Manane. alors personnel bu fi na euh, war a ñëw ci xayma. bon personnel bi nag man mënuma la wax exactement parce que fii moom c'est sûr que moom y aura une cinquantaine moom militaire nag je sais pas. mais fii moom di dinañ toll si si si si une cinquantaine de personnes parce que dispositif la bu bu bu am solo donc du ñu du ñu bàyyi dara yëpp la ñuy yëpp la ñuy jël.